bukkut buxut wala fu tamp tur yi daanaka dañoo bare te wute waaye njariñ bi daanaka benn la ci bépp joolaa lël dafa bokk ci li gën a am solo ci cosaanu joolaa muy ci buluf ci fooñi ci kalunaay ci kaasa ci esing ak ci banjaal ci gox yooyu nekk ci diwaanu Casamance événement bi daanaka du gaaw am ndax léeg lu ëpp fanweeri at dina dox ci diggante ñaare bukkut waaye saa yu jotee communauté bi yëpp ci biir ak ci biti ñooy mobiliser wu ngir mën a amal solo événement boobule. su ko defee at lëmm dëkk bi dafay nekk ci ambiance bi ci aada bi nga xamante ne daanaka balaa ngay doon góor fokk nga jaar ci bukut ñun tey kontante la ñu am euh, ñun ñi di taxaw di wax ak yéen en quatre-vingt la ñu dugg euh, euh, lël bu mag donc quatre-vingt ba léegi ça fait trent six ans c'est pas petit donc euh, moo tax événement bi c'est très important pour ñun ñi nga xam ne ñun ay joolaa surtout Mlomp Mlomp nag euh, musul naan déwén dinañu dugg leen rendez-vous compte aujourd'hui c'est le 30 juillet or que lël bi déclaré na le 9 janvier ça fait sept mois jour pour jour donc Mlomp vraiment macha allah yàlla may na ko ba mu mun a contenir tout ce beau peuple là la grandeur de cet événement. Alaaji Koudia ginnaaw xam-xam bu ñuy jàngale ci biir àll bi ci bois sacré bi bukkut dafa nekk événement boo xamante ne kenn ku nekk da ngay wone mën-mën xam-xam fit ak ngóore. beaucoup c' est la circoncision quoi. la, la circoncision pour amener les enfants dans le carême. Ça, c'est traditionnel, quoi. Bon, maintenant, quand on les amène, c'est pour donner les conseils. Pour que ils sachent que maintenant, il est majeur. Pas, si tu n'es pas circoncisé, tu n'es pas majeur. C'est là-bas qu'on va expliquer quoi que ce soit. Et tu sauras comment vivre dans ta vie. ay fetal la mais poudre la ah explosif la du dara mais nag luy arme danger la mais il faut nga ñeme ko pour nga laal ko nga ñeme ko ah won ko ni ki yow imbécile la moom moom mu lay saaga nga saaga ko léegi ngeen jongante chaque fois il faut que nga am fit pour daan ko ay mbër lañu ñii tamit ay mbër lañu. ren jii Essing ak Moulomp di ay gox yu wuute waaye sens bi daanaka benn la ndax bokkut mooy firnde différence góor ak jigéen mag ak ndaw responsabilité ak insouciance kilifa ak surga ci communauté Joola mooy tax tamit góor mën a denc soxna wala bokk am baat ci société bi Papa Mané Ziguinchor rajo télévision Walfadjri